dal leen ak jàmm yéenekaay yu bari xëy nañu xuus tey ci ndox mi Walf Quotidien fi ci ndakaaru ndox mi jëlaat na dëkkuwaayam ndax quartier yu bari fees nañu del ak ndox askan wi mënatuñoo doxi seen soxla dëkkee di ngàcc démb démbeek digg bi tagatembe ndax tali yoo xamante ne ndox mi nangu na ko yéenekaay bi ne ba wetu pont Sénégal émergent tali gafa ne ndox mee ko xàppati yéenekaay bi ne loolee jur jafe-jafe lu ko dalee Padoua jàpp Grand Médine yéenekaay bi di sursaane tey ma wax li gàllankoor googule autoroute Limamoulaye fatalloog pont de l'émergent yéenekaay bi ne googule tali am na jafe wàllu assainissement ak BRT bi ba ci tali Grand Yoff yéene nuñ ko defaraate fan yële ñu weesu ak nañ ko sekkaate moo jaarul ci yoon si source a am ñu ci joxoñ baaraamu tuuma entreprise bii di CRBC ONAS ak direction de l' assainissement yéene cabinet enquête ne coono yaa ngoog tàmbalewaat na ci ndakaaru capital gaa ngi fees dell ak ndox quartier yu bari ci ndakaaru ak bi neexut a dem ndax ndox ba ci pont de l' émergence mi préfet mu ndakaaru xam le ne dañ ko defaraat biir ndox mi te dara xewagul nawet gi xóotagul Sud Quotidien ne demal ca cité pépinière ña nga ca biir ndox ma tali Mam Jaara ma nga ca biir ndox ma tali karo kenn seenatul karo ya ba ci Medina Fass mbaaw lépp ndox la yéene cabinet rawatina dex bu mbaaw ma ngay fees bay bàll yéene cabinet l'Observateur ne ma ngoog banlieue bu Ndakaaru soobuwaat na ci jafe-jafe soobuwaat na ci mbënd rawatina Kër Massar ndax quartier yu bari ña nga ca biir ndox ma fu demee ni Aïnoumady 1 ak Aïnoumady 2 yéene cabinet askan wa fa yeewoo joxoñ nañu baaraamu tuuma autopont gañ fa defar bees ne moo sooke yéenekaay bi di l'Observateur waa météo xam leen ne ndox mi jeexagul mun naa tawaat tey ji ci alxamis gi ak ëllëg ci ajuma ci ak fan yi ñu jëm yéenekaay bi di a ngi xuus a ngi tëmb jaari Rufisque Kër Masaar ak Pikine ba Géejawaay quartier yu bari askan wa fa dëkk jaaxle nañu lool jommi jomet la ñu def amatuñu jëmukaay ña nga ca biir ndox ma yéenekaay bi di ñu fàttali ne te moo ne de lu ëpp juróom moom la nguur gi génne ngir xeex mbirum inondation yi waaye mel na ni yooyu le milliards ma doon lu jaaxal lool Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp xëy na xuus ca ndox ma ma nga woon ca Kër Massar ngir masawu askan wa Bougane Gueye Dany ne du ca yem fas yéene naa kalaame nguurug Sénégal ci yoon ay kàddoom ci waa Grand Place moom Bougane Gueye Dany ne ana lu jege fanweeri milliards yi ñu fi jotoon a xaymaal département bu Kër Massar milliards yooyu le ana fu mu féete Bougane Gueye Dany ne ana ñañu dénkoon liggéey ba ne waxtu wa jot nañu kalaame leen fu mbaxana doone benn Bougane ne saay su ne ay milliards yu mu bëgg dugal ci mbënd mi yooyu le milliards askan wi duñ ko seen duñ ko gis yéen a kaabi réew mi quotidien ne ndox mu takkoo takku moo wàcc démb ci ndakaaru yemoo campagne électorale gu sol ndox kenn tànnul dagaan baatu askan wi démb ndax askan waa ngi ci coono ci biir ndox mi yéen a kaabidi direct news ne ndox gi ni mel mun naa jural jafe-jafe coalition Benno Bokk Yaakaar yéen a kaabine ana ministre Omar Gueye mi fi diggee woon ne lu toll ci fukki milliards ak benn nguur gi génne na ko ngir saafara jafe-jafe askan wi yéen a kaabine ana Omar Gueye mi fi diggee woon yàggut xamle woon ne askan wi daañu tàqalikook mbënd ci atum ren ji te tey la rawati direct news ne dina jafe ci waxtu campagne gi ñu ne Benno Bokk Yaakaar mun a wax ak askan wi lu ñu dégg yéenekaay bi di Tribune gis ne nawet gi le yemook ndakaaru fees del ak ndox du doon ngénneel ci coalition Benno Bokk Yaakaar yéenekaay bi ndax ndakaaru Thiès ak Keur Massar ak feneen ak feneen askan wi tal nañu leneen lu dul campagne yéenekaay bi di Tribune xam ana milliards yi fi nguur gi génne woon ngir xeex ko inondation yi yéenekaay bi di critique ne Dakar angoog ma ngay xuus waaye bile campagne faf naa tàbbi ci ndox mi yéenekaay bi di ne ci bile campagne électorale ay jege liste Benno yéene kaabine mbooloo mu takkoo takku ñoo ko gàttandu ñoo ko teeru ca Goudomp ci njiital Souleymane Ndiaye di directeur des infrastructures aéroportuaires ay kàddoom ci l'évidence moom Souleymane Ndiaye jot na dànkaafu Ousmane Sonko mi mu ne munta féewale Casamance Souleymane Ndiaye ne Casamance benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar Souleymane Ndiaye ci l'évidence gis ne discours ci wàllu boddi konte xeet wala askan wala waaso du jàll ca Casamance duñ ko fa nangu ci biir yéene kaay bi moom Souleymane Ndiaye xamle ne lu ko dalee Goudomp ak Casamance Benno Bokk Yaakaar jël na ndam li ba ne ndam la yittewoo ci bile campagne moom Ousmane Sonko ñu ngi koy xaar ca titre foncier bu njiitu réew mi Macky Sall foofee ca diwaanu Matam géne cabinet Farba Ngom ak ay naataangoom ñu ngi koy dànkaafu xamal njiital Pastef ne mun nañ ko faa dalal waaye ci lu yemamaay lay doon géne cabinet l'évidence di ñu xibaar ne njiital coalition bokk gis-gis ànd liggéey moom Pape Diop jot nañ koo dalal ca Kédougou jaar na ca Matam ak Fulaadu ma nga feegook Mamadou Lamine Massali ak ministre Abib Mbaye ak ñeneen ak ñeneen l'évidence ne moom Pape Diop jot naa taataan jafe-jafe askanu Kédougou ba ci Tamba ak la ko jaaxal bokk na ci la xew ca Kédougou ne fa la or ba di jógee waaye gox lagu gu tumuranke lool ndax ñàkkum jumtukaay ñàkk taxawu njiital coalition bokk gis-gis liggéey moom Pape Diop xam le ne saay bu demee ci assemblée nationale dina fa yéggee jafe-jafe askanu Kédougou Fulaadu ba Tambacounda ngir ñu mun leen a jox cër rawatina suqali seen diwaan yéen kaabit Walf Quotidien njiit réew Macky Sall bëgg lu gën a suqali lii di coalition Benno Bokk Yaakaar rawatina mun koo dooleel ci yile woote yéen ba tax na ma ngay tàllal loxo ña jóge ca PDS feneen ak feneen yéen kaabine Mayoro Faye ma ba PDS wut wutali coalition Benno Bokk Yaakaar Cheikh Mbacke Bara bàyyi PDS wutali Benno ba ci Serigne Fallou Mbacke mabba coalition Yewwi Askan Wi ci biir yéen a kaabidi Walf Quotidien kii di Thierno di analyste politique jàpp ne ñoom ñi le fekk njiitu mi mun nañ ko dooleel waaye mun nañ koo xañ ndam yéen a kaabidi Vrai Journal ne neexul ba neexul waaye njiitu mi Macky xelam dalagul ci bile campagne électorale rawatina ci élection législative a ne ci ñoom jot ngaa lekk lu toll ci téeméeri million yu toftal fanweer Dakar Times ne ci mandat juróomi at ab député jot na fee consommé lu toll ci fukki million ak ñaar ci wàllu carburant ak payoor gu toll ci juróom-ñaar fukki million ak juróom-ñett ak kenn ku nekk ak wotom bu bakkane te njëg ma toll ci ñeent fukki million Dakar Times ne moo xam député yi fare ci opposition bi wala ba ku jeeg politique bi kenn ci ñoom nangu toon ñu fësal rapport financier bu assemblée nationale génekabi di libération ne kawteef am na ca avenue Bourguiba gannaaw xuloo ga dox ci diggante taximaan ak dawalkatu càk-càk libération ne ci googule jote ca la dawalkatu moto ba di Babacar Babou toll ci fanweeri at ak juróom-ñaar ca la xeex ak Mamadou ma mu dóor ba faat ko libération ne doon lu metti lool dawalkatu taxi amal tende falu ñaxtu dem foofee ca police bu jëppal yéen a kaabidi ne tey ji la ñu fas yéene amal tànneef jëm ci footballkat yi gën a xereñ fi ci Afrique yéen a kaabidi stade ne ci googule ndaje ca Rabat Sénégal du ca des ginnaaw te bu ñu deful ndànk Sénégal mun na faa gàddu lépp Walf Quotidien Aliou naa doon coach bi gën ràññeeku ci Afrique ci at mi waaye Sadio Mané mun naa jëlaat lii di ballon door africain Walf Quotidien ne kon su boobaa dóor dooraat lay doon mbégte coupe d'Afrique bi di wéy ndekee jël coupe nii la neexee du mos a sàppi la neexee